Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi leen gërëm leen sant jàngatu bés bi ñu ngi koy jëmale sur la crise universitaire université Cheikh Anta Diop université Cheikh Assane Seck bu Thiès euh, Bambey partout fu am université ba kaw Kaolack université yi dañ nekk si ay jafe-jafe mën nañu wax ni lan mooy li crise universitaire boo demee boo demee si daara yi kaw yi professeurs yi dañu nekk si ay jafe-jafe di seen i ndàmpaay ay jumtuwaay yoo xam ni nguur gi ba léegi saafarawu ko ñoom ñu ngi grève guddi ak bëccëg yenn étudiants yi laaj seen bourse seen ndàmpaay ak seen mbëbët nekk na loo xam ni nguur gi fi nekk war nañu delloo njukkal étudiants sénégalais yi bu ñu jàngatee tuuti université day gën di dellu ginnaaw man maa ko wax ginnaaw bu ñu defee benn jàngat que njàng mi day gën di nasaxal boo xoolee jamono yu njëkk ya euh, daaray kawe yi ah, dañ daan def ay jéego yu mucc ayib jamono yi Senghor ba jamono yi Abdou Diouf boo amoon sa baccalauréat amoon nga bourse bu mucc ayib euh, Sénégal yi fi gën a ràññee sur le international nekkoon université bu gën a xaañ euh, en Afrique francophone un peu partout en Afrique ma tey université Cheikh Anta Diop ak université yi nekk fii ci Sénégal dañuy gën a dellu ginnaaw dangay gis benn étudiant boo xam ni dem na ba licence dem ba master kàllaamaam si nasaraan dafa des lan moo indi loolu euh, dañu nemmeeku dëkk bi ay atani nii di naan la fuite des cerveaux euh, professeur d'université yi bari tey du mooy nañu tey daara yi kawe yi dem jàngale yi bitim réew lan moo indi loolu mooy la mal gouvernance mal gouvernance boobu day tax étudiants yi seen jàng dewet noonu moom la ñu constaté actuellement depuis quelque temps ak ay années que daara yi kawe yi dafay gën di suux day gën di wàññeeku nañu xoolaat bu baax euh, yenn recrutement yi pédagogie amatul volonté amatul détermination amatul ak engagement amatul ñaata bachelier euh, ñaata euh, étudiants ñoo fi nekk ëpp nañu junne lu ko teg bële yi kenn orienté wu leen diggante euh, atum deux mille ba deux mille vingt et bii ñu ngi taxawaalu si mbedd yi ñi am seen licence master jusqu'au doc jusqu'à doctorat ñu bëri ñu ngi sone euh, diwaat le gouvernement le président Macky Sall mu gëstu bu baax les diplômés de l'enseignement supérieur du dëgg du yoon euh, Sénégal ñaata ndaw ñooy taxawaalu fii. ba si les centres de formation les écoles de formation ñu bari ñu am seen i lijaasa ñi taxawaalu fii kenn jàppale kenn jàppale leen ma ne loolu dëgg du yoon ana milliards yi lam-laame fii ci réew mi nañ ko dugal dans notre système éducatif euh, dañ daan toog assemblée nationale di voter budget du ministère de l'éducation pour cent dañ ko jëmale sur dans notre système éducatif amoon na fi ay projets jamono yi Abdou Diouf ay PDEF des projet euh, de haute qualité projet dañ na saxal mi ngi si tiroir yi di nelaw euh, war nañu xoolaat bu baax le système LMD xoolaat bu baax aussi euh, le master bi ñuy wax fan yëpp indi ay gàllankoor ku bëgg a dem ba maîtrise ba master ma ma ne bàyyi leen ko mu dem jàngi université tey institution yi cher na université tey étudiants yi dañu découragé amatuñu benn espoir dans notre système éducatif tant au système secondaire qu'au système universitaire nu ñuy woo le ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Oumar mu gën a toog ak étudiants yi waxtaan ak ñoom euh, les les responsables universitaires loolu mooy réew loolu mooy démocratie loolu mooy bonne gouvernance xam ngeen ni am na benn bataaxal bu siiwal Freedom's House benn bataaxal benn ONG bu nekk fii ci États-Unis euh, génne siwal na benn rapport di tuut baaram Sénégal que Sénégal royukaay la mais dañu constaté que Sénégal démocratie bi bonne gouvernance bi nii gën di surux di dellu ginnaaw kooku mooy bataaxal bi gën a fan yi euh, dégg ngeen organisation des droits humains jël nañu seen i kàddu ñii ànd nañ si ñii ànduñu si ma ne où sont ONG ana gouvernement bi ana partenaire au développement yi ana suñu njiit yi ma Sénégal jot na liggéey ñu xar suñu tànk tubéy génne réew say jafe-jafe ak ay tolof-tolof coow li bari na trop partout muy suñu système éducatif bii ñuy wax day gën di dellu ginnaaw niveau bi amatul xale yi jàngatuñu euh, ñu ngi laaj seen bourse daara diggu dóom yi gis ngeen les les les syndicats ñu ngi ŋàññi madame le ministre du travail madame le ministre de l'emploi que kooku fàllewul euh, syndicat yi euh, femme ñi ngi doon réclamer des rentes administratives ay mbir ay kayit yoo xam ni dafay indi ay jiixi jaaxa dans l'administration ana administration boobu ana madame le ministre de l'emploi mu gëstuwaat jàngalekat yi gëstuwaat syndicat yi euh, seen kayit yooyu ñuy laaj au niveau de lu ñu mën ko topp te lu mu gën a gaawee ma ne loolu mooy réew mais talatuñu nekk fii di saagante di tabalante ay dëmm di xuloo di ŋaayoo Sénégal en ce vingt-et-unième maa ngi woo ñëpp muy le président Sall bi nga xam mooy jiite réew moom la ko yàlla dénk mu wax ak le ministre de l'enseignement supérieur wax ak aussi les responsables universitaires responsable aussi ministère de l'éducation nationale que ñu góorlu euh, tabax defaraat njàng mu wóor njàng mu jaar yoon fii ci wàllu Sénégal ah ma su suñu njàng maa ngi na saxal lii gëj na am Sénégal yaa yaa 40 ans plus de 40 ans Sénégal royukaay la woon en matière d' éducation. Université Anta Diop bu Ndakaaru ay été créée en 1957 ma bamtuwaat ko formé na fi ay cadres ay présidents ay ministres ay députés j'en passe il est temps de tirer la sonnette d'alarme jot na aussi ñu. réformer le système universitaire xoolaat bu si ce qu'on appelle les assises universitaires loolu mooy réew te buñ ko defee suñu système éducatif dina gën a jëm kanam mbokk yi tey waroon jàngatu bés bi jëmale ko sur la crise universitaire et notre système éducatif qui est toujours en ébullition jërë ngeen jëf beneen yoon incha allah